bu dee ci wàllu gis-gisu appareil nag am na appareil boo xam ne boo demee ci réewi naar yi ak réewi eh, yeneen ci dañ koy suntoo weer yooyu moom bu dee yooyu waxtu na weer waa fi ndax weer du jóge ci asamaan si waxtu na mi ngi fi saa boo dëppee appareil yooyu muy CCD caméra LCCD caméra yooyu nga xam ne mooy télescope ñoo xaw a jege appareil yi foor lañ waxtu ñu ko dëppee dañ koy gis waaye soo gisee ci wàllu weer ñu bañ appareil yooyu mooy jaww ji ni mu mel dafa bari ay bidiw yu fi yàlla denc te yooyu léeg-léeg boo yoree appareil yëpp ci moom yooyu ngay gis moo tax njuumte yi am yëpp di am ci wet googu ak ci waxtu woowu kon li nga xam ne moom la diine mayee ci mën a gis weer wi mooy altine ji ñëw mënta nekk danañ ko séntu ngir sunna la ndax weer wi dafa nekk ci cercle di daw suuf si nekk ci cercle di daw jant bi nekk ci cercle di daw benn bu nekk la ngay daw wuuteeg sa morom suuf si seconde bu nekk mi ngi daw 30 kilomètres seconde bu nekk 30 kilomètres lay daw waxtu bu nekk 1800 kilomètres lay daw boo xoolee euh, bis bi daf lay jox cinq cent quatre vingt mille kilomètres moom na soo si daw ci bis bu nekk mooy ñaar waxtu yi ak ñeent waaye bu dee jant bi da ko gën a gaaw jant bi seconde bu nekk deux cent kilomètres lay daw kon ñoom ñaar ba tey beneen jumte mooy mun ñëw sowandoo ci am réew ñooñu gis ko wala gisuñ ko mu ñëw Sénégal ñu ñu di ko mën a gis mun ñoo ànd soowee ñëw soofee Sénégal kooku mënut a nekk ndax jant bi da ko gën a gaaw luy daw deux cent kilomètres par euh, seconde ak luy daw cinquante kilomètres ñaar yooyu mënuñoo ànd léeg-léeg kon loolu tamit ba tey xam-xam da ko dàq ñi koy wax dañoo gëstuwut ilmul falak mooy astronomique waaye suñu ko gëstoo nañu xam ne loolu mënta nekk deux cent kilomètres yi mu daw par seconde boo ko xoolee ci waxtu yi daf lay jox par minute daf lay jox euh, douze mille douze mille kilomètres mooy fukki junne ñaar boo xoolee euh, bis bi mu jox la sept cent vingt mille kilomètres téeméeri junne ak ñaar fukki junne kon jant bi lu gaaw la boo seetee bis bi yëpp dafa lay jox dix-sept millions deux cent quatre-vingt mille kilomètres kon jant bi loolu lay daw cercle boobu mu nekk nag ak cercle suuf si ak cercle weer wi léeg-léeg dañuy dajee ci ñaar fukk juróom-ñeent boo xamee ne jant baa ngi waaj a so ñu di ko tuddee al muhaaq mooy wilaadatul xamar fi weer wi di juddoo ndax altine ci ngoon weer waa ngi juddu 2 ser ci guddi yu teg 32 minutes kon boo tàmmee 32 minutes yooyu ba keroog jant bi so boo ko xoolee daf lay jox fukki waxtu ak juróom-benn kon weer wi dana tuuti tuuti goo xam ne mënee su bët ndax 0 pour cent lay doon loolu mooy waral gis weer wi dana xaw a jafe ci côté boobu am maa am na ñu koy séntu dimanche kooku mën ñoo gis weer yi dimanche boobu mooy dimanche bii di ñëw la 11 ndax weer yi dafay njëkk a jant bi weer waa ngi so 19 heures benn minute mooy eh, jant bi di so 19 heures 17 kon seen diggante boo xoolee parce que 16 minutes dox na fi weer yi dana so ba am fukki minute ak juróom benn jant bi door a so foofu séntu weer nekku fi kon yooyu yëpp tamit lu mat di bàyyi xel la ba suñ la waxee xibaaru weer nga xam fi mu tegee kon yu bare ba lii nag suñu kilifa ko baax ndax jàng nañ ko ci histoire depuis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi loolu mi ngi foon ginnaaw yonente bi yeneen réew yi ñu yoon ci xeeti wuute weer yooyu waaye yàqutoon dara ci diine ji ndax li ëppoon ci wuuteeg weer jugiwutoon ci diine ji mi ngi jugi woon ci chrétiens yi ci ay jamono ñoo amoon problème mu weer daan ci xuloo daan ci xeex xeet yu mel noonu waaye amutoon ci diine ji diine ji la amoon rek weer yi feeñ na barab sàngam ñam fekk foofa woor nañu feeñu barab sàngam ñam fekk foofu ñu wóoruñu loolu moo amoon loolu amutoon xuloo dagg sente amutoon dara système mu xaalis dugg ci nag ak yeneen yu bari moo waral yii di am ñii buñ ñee gis nañ ko faaw dañ ci sukkandiku waaye loolu amutoon ci diine ji jamono Seydina Omar radiyallahu anhu dañ ko wax na ko weer yu feeñ na ca dëkk bi Yaman mu ne leen dañoo bokkul benn gox te foofu seen réew ñoo fa lañ teeroo Saoudia ak Yaman ñoo ñoo fa lañ teeroo ndax diggante euh, Saoudia ak euh, Makka ak Madina 400 kilomètres la ñeenti téeméeri kilomètres fa ñu fa ak Yaman boo ko seetee 100 kilomètres muy 500 kilomètres. Omar ne nañ bàyyi ndax comme ñu bokkuñ benn gox na leen bàyyi ñoom ñu woor ñu ñu bàyyi ba gis weer wi ci jamono yi Abdullah ibn Abbas mi nga xam ne mooy ibrul umma comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale euh, waajuru mu jigéen Ummu Fadl dafa yónni ku ñuy wax Kuray bu fële ca Saam ca Muhaawiya ya ibnu Abi Sufyaan mu doon ko doxal foofa ay yitte ba mu àggee foofa ca ngoonu alxemes ja ñoom ñuy séntu weer wi gis ko daal di xëy suba daal di um ajjuma Abdullah ibn Abbas mi ngi Madinatul Munawwara mu séntu weer wi moom gisu ko mu um samedi kuray bu nekk foofa ba ñuy waaj a war mu ñëw fekk si Abdullah ibn Abbas daal di indi yóbbante bi nga xam ne moom la ko waajuram yónni woon ñu war a séntu weer wi mu ne ko ñun de weer wi gisoon nañ ko alxames ca ngoon ajjuma lañ um Abdullah ibn Abbas ne ko ñun de ajjuma ci ngoon nañ ko um samedi mu ne ko nu ñuy def mun ne ko da ngay dellu fa nga gisoon weer wi nga ànd ak ñoom ñun bi ñu woor dañ koo gisoon bu ñu wooree dañ koy gis kon soo moo li ru'yatihi wa aftiroo li ru'yatihi boo demee ci sahihul muslim ndax dafa am ay fautes yoo xam ne dafa nekk ci ci biir téere yi te duñ ko du bàyyi xel da nga fa fekk fukki xadis ak juróom-benn yuy waxtaan ci wàllu weer wi te xadis yëpp ñooy bokk leen di lu néew la loolu nag lu koy indi mooy dafa bari téere ñu koy bind ñu ko doon bind ñu ci bari dañuy màndi màndi boobu moo waral ñuy jaawale bind ay njumte yu bari am na ci yooyu ñu koy jàng mën ko bañ a bàyyi xel waaye am na ci moo waral xam ne fukki waxta ak juróom-benn yu bokkul ci wàllu weer wi ci même xadis duñu wuute la dara waaye lu ko indi mooy ña koy bind ci yooyu jamono dañoo gëmoon wàllu sàngara ci wet googu dañ daan naan teg téere yi di bind di naan ku teg bidéew sàngara di naan di bind nag da nga bind lu bari lu bokk ci téere yi bari waa ne téere yu ñuy jàng yoo xam ne la ca nekk lu ci bari nañ koy tuumaal defuñ ko boo demee ci mas mas masnad imam ahmad da koo tàmbali woon bind ca tuuti bàyyi ko doomam ñëw yeggale ko yokk ci lu bari boo ko fa seetee day ëpp ki xaaj ak kooku is da yaakaar ne imam ahmad moo bind lépp fekk tuuti la ca bind loolu ci téere yu bari la ba ci xalil bii ñuy jàng borom ba mu gaa yi sulli ko bindaa ci lu bari kon ixtilaafaat yu am ci téere yi dafa ma di bàyyi xel ci wet googu moo tax ci wàllu weer lii moo boo demee ci sahih muslim da nga ko fa fekk muy xadis yu baree bari ci wàllu weer muy yépp ñu soloo ko ci ibnu omar muy fukki xadis ak juróom benn di wax ci loolu fa in xumma fa in kaana doono xayaabata yu mel noonu waaye lu yonent bi jàngale ci wàllu weer woowu fa in kaana doonoo xayaabata mooy bu fekkente ne da ngeen koo séntu te am ay niir yu dox seen diggante wi ndax yonent bi xamoon na weer yu jigul ci asamaan si bu fekkee dafa am ay niir na ngeen mottali fan waaye mu wax beneen xadis ne fa in qumma aleykum mooy fekkee jaww ji dafa poussière wala am na lu dox seen digganteeg weer wi te du ay niir ba tey na ngeen moo téléphone weer kon soomoo li ruyatihi baatub ruya alquran da koy jëfandikoo jublu ci li nga gis ak bët waaye su jëfandikoo lu ñu gis ak appareil day indi beneen baat comme ni ma ko waxee ci Seydina Omar Abdullah ibnu Abbas ba ci jamono Ali ibnu Abi Talib woor nañu ba am ñaar fan ak juróom-ñeent ngoon ñu ne gis nañu weer wi om Aliou neen loolu doyuma daal di daal ne na ngeen woor bu subaa ba ñu xëyee suba di woor ba takkusaan suuf ñu seen weer wi mu ne kon de ña ko gisoon démb wax nañ dëgg waaye lislaam da ne da ngay sukkoon ci la la doy waaye doo sukkoon ci ay dégg ndax am na jënn kilifa gu mag bu ko waxoon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nit ki mën nga koo xam ba lu mu wax di dëgg waaye lu luñ ko nettali dëgg wala lu mu dégg dëgg la kooku mënta nekk wala luñ ko gisal kooku mënta nekk kon faaw réew yi dafa am lu ñuy de ixtilaaful mataale weer yi dafa am ay fenkukaay yu wuute ndax bu bu jant bi soof yi am na réew yoo xam ne ma nga fay fenk nga xam dañuy rabee fukki waxtook benn saa bu jant bi so fii ci Sénégal ma ngay fenk Auckland foofu noonu ñu rawee onze heures onze heures de temps waxtu woo xamee ne ma ngay so ci Imaratul Arabia Sénégal dana def fekk mu des ñeenti waxtu buy so ci Makkatal Mukarrama dana fekk Sénégal des ñetti waxtu pour jant bi so ñooñu mun ñu bokk ay fenkukaay wala ay sowukaay loolu tamit lu jar bàyyi xel la te bu fekkee dañoo ànd so Makkatal mu mënuñoo ànd ñoom ñaar so fi ndax jant bi ko gën a gaawe lu bari kii day daw 30 kilomètres par seconde kii di daw 200 kilomètres par seconde fan la ñuy àndee te suuf si ni ko yàlla bi bindee dañ cee nekk ci kaw rek mu taalal ko ilal ardi kayfa sutihat nga jàpp ni mel waaye am na ay xuur am na ay këgësël cercle bi muy daw tamit bokkut ak cercle bi weer yi daw weer yi dafa koy wër ci côté yëpp moom te muy wër jant bi ci benn côté loolu mooy waral bu ñu àndee soo manqué ba la ñuy agsi fii day fekk suuf si day détourné ba nga xam ne weer yi bàyyi na ko gannaaw te jant bi moom day soof fii ñoom ñaar duñ parce que raw na ko loolu mooy waral gis ko ci am réew gis ko fi du yomb waaye bépp réew bu bokk waxtu mën nañ koo gisandoo ci kaw bu fekkente ne réew mooma dañoo tolloo fu ñu nekk ci géographie suuf mais bu fekkente ne Sénégal nga xam ne dafa nekk ci jant bi ndax Afrique gu weex a ak gu ñuul gi mooy fu mujj sowu jant bi rawat na kon Dakar kon gis naa ko Mali gis naa ko yeneen réew loolu moom ay wax la rek yu tegu ci xam-xam ndax léegi da ngay digg ñooy gis nañ ko Mali te heure bañ lay wax boo ko xoolee ci ci heure da fekk ne weer yu soowoon na bu yàgg avant jant bi so te ginnaaw soow weer yu jant bi door a so kooku séntu weer nekkatu fa yooyu yëpp lu mat di bàyyi xel la te ñoom ñaar léegi saa bu nettali ñaar ko juróom-ñeent dañuy dajee ci benn ligne li ñu tudde xattun waxami mooy seen ñetti cercle yi dañuy tombe kii cercle am day wër ba jàkkaarloo bii bii wër ba jàkkaarloo bii wër ba jàkkaarloo bii jant bi nag luminance bi muy amee mooy tax weer yu tuutiwaay yi duñ ko mën a gis bu fekkee daf koo yeex a bàyyi mën naa soofee ñoom duñ ko gis mu ñëw fii ñu soo ko mu soo fii ñu gis ko Sénégal moo gën a neex a gis weer ci réew yi araab yi fuuf ndax fii dañoo nekk ci xattul istiwa mooy ci diggu euh, ligne bi ci digg bi la jant bi jaar bu dee yeneen réew yi yi da koy felasu yi mu jaar foo xam ne yi mu njëkk a sofi am na ci réew yoo xam ne juróom benn weer yëpp ci guddi la nekk am ci réew yoo xam ne juróom benn weer yëpp ci bëccëg la ñu ne la ko waral mooy yi dañoo pegg yi nekk ci digg bi yi nekk ci cat am ci réew yoo xam ne mën nañoo toog at mépp benn yoon la jant bi so boo demoon alxuraan bi muy jàngal sil xarnay ni bi muy dox ba àgg fële ca Norvège muy fa tabaxa sawaban xatay saabal xa matla samsi wajadaha tatlu ala xawmin lam najaalu mi doona shitran tafsir yu njëkk yi firi nañ ko nu ne waaye bi ñu dikkee ba science do xam-xam ndox lañ xam ne jublu ci loolu mooy foofa jant ba ñoom da ngay nekk ci guddi gi weer wi nekk ci fukki fan ak ñeent ngay xool di seen weer wi du xool di seen jant bi nga xam ne guddi gi da ngay gis weer wi gis jant bi boo xoolee côté bee muy bëccëg nga xool côté bii muy guddi boo demoon Australie am na foo xam ne boo doxoon da ngay nekk ci lëndëm gi soo dawee ay minutes yu néew daal di dugg ci dugg ci leer gi mooy fii bëccëg la fii guddi te be ligne bi leen séparé da nga koy mën a tëg bët fii nag mënoo ko tëg bët ndax jant bi dafay jaar si digg bopp awalam yaro ila ma xalala min seen yatafayyaw silaalu an yami wa samaali sujjadun lahum daaxirun wa nashhadu anna sayyidana muhammadan rasuluhu wa mustafa alayhi wa ala alihi wa sahabatihi albararati al axyaar صلاة وسلاما متصلي الدوام ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس هذا ثعبان قد استقل راحلا فكأنه ما كان وهذا رمضان قد أظل قابلا وكأنه أيضا قد انصرم وبان فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة واجهدوا أنفسكم في تسهيل في تصحيح أعمالها واغتنموا فضائل الشهور عند إقبالها فقد كان فقد كاد يقدم عليكم قادم كبير القدر والشان وسيزوركم قريبا زائر الخير والإحسان وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر الكرامة والرضوان وسيد الأوقات والأزمان وخير شهر استهل على أهل الإيمان شهر تناديكم فيه الرحمات من خديم الإحسان وتصفد فيه الشياطين ومردة, ومردة الجان وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران شهر نال على شهور المرتبة العليا ونزل فيه القرآن إلى سماء الدنيا فحفظوا على أوقاته فحافظوا على أوقاته وتعرضوا فيه لرحمات ربكم ونفحاته وفي الحديث من صام رمضان وعرف قدره وتحفظ على ما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله الحمد لله الذي قدر الأزمان وفصل الفصول وأغرق في بحر جوده وإحسانه الأفكار والعقول نشهد أن لا إله إلا الله العليم علام الغيوب ومالك جماع القلوب ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحابته الأئمة الأعلام أما بعد فيا عباد الله سمروا فإن الأمر جد شديد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة لا يقطعها إلا المخففون إلا المخفون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فسارعوا يا عباد الله فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم فهذا زمان المراجعة واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار وانظروا بعين الفكرة والاستبصار واعلموا أن شعبان شهر تشعب فيه الفضل والامتنان شهر توبة من ذنوب وتنوير لقلوب شهر تزكية الأعمال بفضل الله المتعال شهرا أضافه الله إلى أضافه أضافه إلى نفسه نبي نبينا المصطفى وكفى بإفاضته شرفا قال عليه السلام شعبان شهري ومن سامه لمحبته وجبت له معه شفاعتي فتأهبوا لاستقباله يا إخوان يغفر الله لنا ولكم